jox waa Touba Argentine sëñ Dame Cissé mën naa mën naa ñëw yëkkati ay kàddu ci kaddu Argentine gépp jëwriñ sëñ Talla ak euh, waa Brésil sax mën na leen a yóbbaale te wuñ fi waaye benn benn ay miiru jaxate benn gox bi lañ muy Argentine ak Brésil kon sëñ Dame Cissé ñu jox la kàddu gi. aouzu bismillahi rahmaani rahim wal tudxilil musliha fi yadi wa fi daari wa sabbitanhu bilhaadil wa fi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi kilifa ak jotaay bi sëriñ Afiya bu sa imam di nuyu mbokkam yu baax yi mu feggool yi mu nekk ci muxaddamaatul xidma gépp buñ ci tuddee sëriñ Abdul Ahad bu sa mamasta sëñ Abdou bu Bousso maam Thierno ak sëñ Abdou Lahad Bousso Makhtar ak sëñ Abdou Lahad Bousso Abdoul Moutalib ak sëriñ Fallou Mbacké bu ko defee ñu jox ko sëñ Assane Diop nuyoo bi jëwri ni diaspora bi mu nuyul nu suñ mbokki jullit yi suñ mbokki taalib yi nga xam ne ñoo fi jóge ci gox yi fasantikoo teew fii ci barab bii di barab bu tedd di ndaj ci mbootaay gu maanaam ci daayira bu tedd muy daayira Muxaddamatul Xidma muy liggéey bu kawe kon ñu koy nuyu sëñ di jël nuyoo bi rek mu matale ko ci képp kuy dégg sunu kàddu ci barab bi di jot li kàddu ak nuyoo jëwriñ ni sëriñ Touba Touba Argentine muy sëriñ Mortalla Sall ak mboolem waa fédération bépp rek ñoom lañ fi teewal ci kilifteefam la ñuy waxee ah di soññi suñ bopp ñun ñëpp ak di soññaale waa Brésil gële ndax mel na ne foofu benn latin bi la ndax suñu xaadim ma nga nele moom ma nga jóge ba Uruguay Uruguay ñu naan ko Uruguay lépp di Latin Amérique ak Brésil ak yeneen réew ak Chile ci la bokk xam naa yooyu yëpp incha allahu taala jëwriñ mi ngi ma ko doon wax naan dana jokkoo ñoom mooy waa Chile ndax ñoom daayira Sëñ Tuubaa nga fa ak waa Brésil gi ñoom ñëpp incha allah taala waaw la représenté Amérique Amirou Diakhaté kon euh, ñu bàyyi ko xel bu baax a baax incha allah taala xam naa jëwriñ dana ci def ay jéego yu am solo ngir soññ leen ñoom ngir ñu mën a ñun ñëpp ñu lëkkaloo latin ba ah mën a jokk ci daayira bii nga xamante ne ci ndigal lii ñu nekk maanaam muy jumaay Sëriñ Tuubaa ji daa mel ne ci ndigal yi mujj ci Serigne Touba la bokk ci ndigal Serigne Touba yi mujj la bokk kon loola képp koo xam ne yàlla def na ñu lay tudd di la tudd di tudd daayira bi wala yàlla suñu borom def la nga am taw feexe ah ñu lay xàmmi ko mu xaddamaatul ma wala ngay jël saw ñaq wala nga bokk ci ñi nga xam ne dañ koy liggéeyal war ngaa sant yàlla baax ndax du lu yomb waaye ku Serigne Touba ndar liggéeyal la nag doo ci tàbbi waaye kon loolu képp koo xam ne ah ngi jéem a bokk ci mbooloo mi wala lépp luñ bëgg lu nu nga jéem caa tàbbal saw ñàq loolu ak sant yàlla la kon ñoo ngi soññ suñu bopp di soññ waa Latine bépp ci liggéey bii nga xamante ne liggéey bu yàlla gërëm la ak sëriñ Touba muy liggéey lu jëm ci tuubaa jumaa aj Touba ak li ko wër lépp ndax nii ko sëñ Abdou Lahad bu soo waxee ci fere yi ci at mi da da jege 80 millions wala mu weesu ko ci at mi loolu liggéey bu kawe la boo xam ne ñëpp xañ nañ ci kon loolu dañ ciy soññee baax a baax a baax bu ko defee ñu bàyyi xel ne liggéey bu kawe la ndax du du liggéey yi bari na ndax weer wi rek day jël at mi jël lépp jël ndax xew-xew yi fi jaar te yooyu yëpp ñoom ñoo koy taxawu kon loola day laaj taxawaay bu am solo ñu ngi nuyu waa sëñ Fallou Diop euh, mi nga xam ne mooy jëwriñu Angleterre ak ñi ko àndal ñëpp di leen jaajëfal baax seen taxawaay ci seen euh, initiative bu am solo bi nga xam ne daaw ah, noonu la ko fi tàbbee woon muy añi jumaa ji ñooñu waxoon nañ ci jëwriñ daaw xam naa incha allahu taala moom it dina gën a bàyyi xel sëñ Motala ngir waa Argentine ba ñoom ñëpp tàbbi ci liggéey boobu nga xam ne liggéey gënu koo kawe muy añal ñi nga xam ne ñooy liggéeyal Cheikhul Khadim ci jumaa yi Serigne Touba yi kon daal xam naa kàddu yi noonu lay gàtte ndax euh, waxtaan waxtu bi dafa xaw a kii te euh, ñi war a jël kàddu bari waaye nag euh, sant rek di ñaan suñu borom ak Cheikhul Khadim ñu daje ceeg waqt yi xawaay jël la si na daamu fii xidmati yi wahab lahum maaraamu barkib Cheikhul Khadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. salaam wa rahmatullahi jërëjëf Serigne Dame Cissé. kàddu yi rafet na lool kon ñi ngi lay sant ci turu Argentine yëpp e, sëñ jëwriñ sëñ Talla Sall ak dëkk yi fi nekk yëpp mel nay Cordoba ak Buenos Aires di nuyu tamit waa Brésil sëñ Aymérou Jaxate Sao Paulo ak waa Fase fond waa Porto Alegre ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen soññ ci liggéey bi e, ndax dëkk yooyu yëpp benn gox la